Bougane def na deful fay na fayul pour man loolu débat bi loolu de débat bi mooy yow état du Sénégal war nga fàttaliku ne chaque année au Sénégal il y a 300 000 nouveaux jeune demandeurs d'emploi yoo xam ne 30 mille emplois donc nga leen di proposé ay père mère ak soutien de famille ñu ngi liggéey des médias te loo mun munti def. war nga sàmm comme munoo créer mille emplois pour les trois cent mille nouveaux jeunes demandeurs d' emploi yuy am chaque année sur le marché du travail au Sénégal lu dul nga jox leen 30000 emplois na nga sàmm kon emploi yi nga xam ne moo xas ba am donc nous exprimons toute notre solidarité aux, aux travailleurs parce que les journalistes on a tendance à l'oublier les journalistes sont des travailleurs sont des pères mères et soutiens de famille et que ñun ñëpp dañoo war a def benn say ndaxte ce qui est mooy ay baayu jàmbur ndeyu jàmbur nijaayu jàmbur bu ñu moytuwul ñoo nar a ñàkk seen xëy ak seen gontu ñoo nar a ñàkk seen payoor waaye bu weesoo loolu ce qui est en jeu aussi c'est la liberté d'expression la liberté d'informer et la liberté d'opinion mooy ligne rédactionnelle bu des médias maanaam li ma yóbbu kaso loolu euh, mooy euh, mooy mooy li jur jafe-jafe bi am ci des médias donc. Euh,